kii ñu ngi topp ci Cap TV ñu ngi leen di nuyu ci nekk ci turam ak waxtaan ak moom ginnaaw bi nga dalalee sëñ bi ba pare ci ñaari rakka yi ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di kontaan tamit ci waxtaan wi ñu nar seq ndax université Cheikh Ahmadou Bamba bu ñu seetee yaatu gi mu yaatu ba tey jii ci wàllu communication gi yëpp ak liggéey bi ku am solo bi nga xam ne sëñ bi dañ ko yi def ñu koy véhiculer kon bu leen ñëwee fii fekk ma fi et dama ci bég te bi leen biral sama félicitation ginnaaw loolu euh, euh, sëñ bi yàgg na fee dal waaye ñaari at yi gisuñu ñaari rakk yi ndax feebar bi tey ñu ñëwaat ci ndax mën ngeen ñëwaat ci taxawaay bi nga xamante ni am ngeen ko ci biir euh, ñaari rakk yi. waaw xam nga dañuy sant yàlla ñu bare ngi feete ba ci liggéey ji wante kenn xamul ci géej gi. mën ko localiser même ci Sénégal fan lanu Sëriñ Tuubaa julli woon ba nga mën dem mën fa julli <laughs> fii nag yàlla defal na ñun ci ndar te lépp fi la jóge c'est le début du commencement c'est le début de la fin nga xam ne le 5 septembre 1895 fii la ñu signé exil bi xoola exil di mu mel ak décision boobu ak li ci nekkoon yëpp mais mu am un acte de foi boo xam ne ah ku dul sëriñ bi day bu la tubaab bi wow ci circonstance yu mel noonu ak doole ji mu am ak pexe yi mu am ak li mu bëggoon boobu ci Afrique bëgg ko ci Sénégal ngay ñëw teg sa der di julli loo xam ne dafa bokk ci yow waaw kon nag loolu bu nu ko yàlla sa jagalee ñun ñuy sant yàlla sëñ bi dem am ca ndam ngoogu muy ndamu lislaam kon nga xam ne dun ñaar rakk yi dafa am une signification particulière ndax ñun la ko yàlla jagale kon bu nu yàlla defalee ñu ciy yëngu yàlla def tey ji sëriñ Mor bu ñëwee dégg nga baaxe ñu dal ci suñu kër gu bu gile ci suñu jëmm gu xeebu gile wante nag suñu jëmm ji nga xam ne dafa yemul lool dara sëriñ Mor Talla ndax ci lu bari kon euh, macha allah ñaari at yi wax nga ko dafa fekk ne ak Covid bi beaucoup de choses ci monde bi bouleversé ñaar rakk yi kenn feetewu ko wante seetal mbiru Sëriñ Tuubaa ñaar rakk yi. ci reprise bi c'est à quelque jours c'est à quelque jours kii euh, du grand magal de Touba quelques jours rek du grand magal de Touba nga xool ne tey affluence bi am te du nag lu nit wax ci publicité wala dara pour wane ne mbirum Sëriñ Touba soxlawul publicité seetal waxuñu ko fenn mais murid yëpp nekkate teg nañ ko seen xel te mu metti li nu dépensé yëpp ci ñëw nga xam ne ñu fi ñëw yëpp bo dégg nga macha allah waa Ndar génne nañ mais ñi ci ëpp dañu ñëw paas seen paas ak ci conditions yu mel dikk kon nga xam ne kon euh, lii nga xam ne mooy murid engagement bi ñu am. te loolu yëpp seen bëggum sëriñ bi wanewaat nañ ko tey. seen bëggum sëriñ bi wanewaat na ko moo tax ci biir message am gis nañu muy woon ndaw lu ci bëri ci jàng waxul diplôme rek waaye nag xam-xam aussi connaissance. waaw mais xam nga xam nga c'est la force ci li sëriñ bi teg ndax dangay seet euh, cohérence bi xam nga université kenn du tëb tëb créé ka ba pare ne lan laa ciy def université c'est l'aboutissement d'un processus. dañ koy door depuis maternelle di ñëw primaire di ñëw secondaire am seen bac ñëw ba xam ne da ngay xam kii lan laa bëgg def ci ñoom ak lan la ba xam ne donc bu ñu seetee sëñ bi dégg nga c'est c'est le c'est le c'est le citoyen achevé bi ñu soxla bi Sénégal soxla Afrique soxla ko monde soxla moom lay tabax c'est-à-dire nga xam tey jii nga war dem opérer ji jóge fa dem dem dem dem dem jiite ji jumaa ji xoolal nuance boobu. moo tax li mu waxoon américains yi rek ndax xam ñoom danoo jaaxle jaaxle jaaxle parce que terroristes yi seen ay doom lan te duñu ay gurg xool ne kat ah lii nga xam ne sëñ bi dafa leen mooñ ci boppam bu ñu demee Afrique ah, fu ñu mënti dem nga xam liggéey jaamu yàlla jaam dégg nga la question moo doon lan et c'est la réponse ñoom dañuy enseigner sëñ bi day éduquer et c'est ça la différence. donc c'est ça la grande différence ndax nit ki gis nga boo ko éduqué ma ngoog seetal keroog bi ñuy def di di joxe diplôme yi dégg nga di feetal ñi nga xam ne ñoo gënoon xarañ ci ci ci ci université Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne santé militaire euh, dégg nga ingénieur agro bu yëpp seetal concours yi ñu def yëpp ñoo ci raw xoolal am na ci koo xam ne léegi war na tànn ñaar wala ñetti place léegi fokk ñu wax pour bu xam ndax day dem santé militaire wala day dem politique wala day dem kon nga xam ne donc appartement mais seetal keroog bi muy dikk di jël diplôme am ban ko waxee comme comme doxu ràmbatu sëgg kerse gi te te xoolal li ci moom kon yar googu nga xam ne li koy indi mooy éducation ndax enseigner enseignement rek boo ci yemee seq yënditu enseignement rek def sëñ bi wax nag dëgg ka dëgg dëgg xam-xam mooy xam-xam bi mu lay won sa bopp te xam-xam bu ànd rek la yàlla amul benn maanaam moo ko wax ci masalikul jinaan ba xam ne donc noonu la ñu muule hmm? noonu la muule mbir yi et ça c'est ça qui est important moo tax sëñ bi li mu wax état bi war ci xool ñëpp bokk ci xool boo seetee euh, foofu université chab kenn kenn kenn kenn dafa grève amul kon nga xool système ni ko bâtiree ci lin ko teg moo di loolu jàng am fulla am fayda mais aussi am objectif dégg nga moo tax état bi bu demee ba envoyé mille six cent cinquante étudiants yu ànd envoyé waa te bu état bi joxe bu mañ joxe yëpp yëgalu ko sëñ bi yëgalu ko boppam ndax li muy wax rek la pilule sëñ sëñ sëñ Moutala képp nit boo xam ne dafa war jàng nga kay fay kooku ñàkk fay du leen boole. moo tax état bi ak lu mu ko lu lu mu mëntu bañ joxe yeneen université privée yëpp nuy yëngu ñoom di wax ndax dañuy sentir ne état boobu ngay li muy joxe l' ne n' est pas obligé parce que jom wekkuñu ci le système moo tax mu nekk un système solide boo xam ne macha allah tey jii euh, bu nu xoolee ñi fa ñi fa génn yëpp. dégg nga ah dañuy xool ne kat am yaqin ne le Sénégal de demain ñoo ñoo koy yor. ndax mais relation particulière entre maître <laughs> yow nag bàq nga jaay xam nga Serigne Mor. yàlla dafa def vers les années soixante-dix mi ngi bëgg yàgg de boobu sëñ bi na ma baal day jàngi gànnaar. li ma njëkk remarqué ci moom mooy gis nga silwise gii masul dañ booba maa ngi koy wax léegi dafa walisu carton moo amoon bu ndaw la daan def téere yi quelques yérem bien repassé même moom solom te doo ko dégg mu taxaw wala mu wax dara loo xam ne danga nga naan kii ndax doomu sëriñ ndax lii war na ci taxaw xam nga déjà à cet yàlla nag def ndax li yàlla def nu boole mën ak moom euh, may def brevet fekk la laa bay la ñëw war fanaan war jàngi booba mouridisme éclore nii man yàlla dafa def sama maam bi bi jur sama ndey ma aade Samba Gueye bu Kawlax ñëpp xam nañ ci wàllam ci yoonu moo doon représentant sëñ Fallou foofu bi mu dikkee sëñ bi sama yaay nekk di ko nekk daal sa euh, mbàkki tagg ka nekk sa taalibe bi dafay def dafay def brevet démb de suba incha allah. bi ma xëyee am na lu ma jox ma naan sëñ bi sama yaay gondi gi ko gondi ak li ma jox ba ma demee yàlla def ci ci deuxième du centre xam nga booba téléphone yi portable amul sëñ bi après gisanteetuñu xaw ma fan la nekk pendant deux trois ans xaw ma fan la nekk gisante wuñu fenn xam nga rek ma sob comme que ma premier nekk première ne damay def baccalauréat mm-hmm. ne damay def baccalauréat ndax man mii. yaakaar naa sama niveau war na ma ko mën a may bi ñu toogee ba ca bis ba ci suba ma ne sama yaay ah sëñ Maam Mor de bu ko yàlla tombale woon so bii ni ni brevet bi bu baax <laughs> billahi sama déng ñu toog ba quatre rek sama benn doomu bàyyi ndey Fatou Gueye daf ma woo kàllaama dafa dafa réer jékki-jékki laay laay sëñ Mor ñëw na ma ne ma ne sama yaay barke sëñ Tuubaa mi naa xam nga li xam nga boobu baccalauréat pour être admis au premier groupe il fallait de moyenne. ma ñëw admis d'office avec mention. admis d'office ak mention. kon sëñ bi mën naa taxaw yëkkat sama loxo ne man ci ko xam ne da ko dënk sa bopp direct man maa maa njëkk nekk taalibe kon mu am lu mu jàngal xoolal xoolal sëñ bi ñi ma ëppale bari nan ñi ma gën a tekki bari nan ñi ma ëpp ma tànk bari nan wante seetal sama kër ko xeebu kii ci lay ñëw te boo ñëw lu mu lu mu lu ko boo doon ñëw ndeka wax du jóg def naan anamu bu ma nee naa jóg na mu jóg kon nga xam ne muy fierté ndax man je fais partie de dix yi créé de des étudiants mourides bi nekk Hizbut Tarqiyyah kon ñun sëriñ bi daf noo teel woon ci boppam wante muy fierté mouride ci par comportement am ci par jëfam xam nga tey jii lu sëñ Mourtada liggéey bi sëñ Mourtada gére woon a ah, bii que suñ borom woowee ci ci wetam maa ngi toog bi muy wax ne bis naka tey sëñ Mor soxlaam moom ci boppam dootu ko jóg yëkkati taxat di jóg seetal au sa santé seetu kooku yépp fu ne mu dem fa dégg nga lët sëñ mu sëriñ Mourtala tegoon yëpp lu mu tomb rek mu yaatal ko ba tey jii macha allah macha allah fierté ñëpp la mais man de maa ci rawati man mi nga xam ne day lépp ci sama lépp ci man. jërëjëf <laughs> jërëjëf. Ah, alors pare na. ah mais Talif ah. moom la ñu doon àndal jërëjëf mbokk yi doon teewlu seen rajo ICAP FM ak ñi nga xam ñoo ñu doon topp ci ICAP TV jërë ngeen jëf.